Yang ngay démarré te problème yang ngay démarré tribune yéene kaay ne laal li malaanu kaaraangeewu njiital Pastef ci la waaw jàpp assemblée nationale day teg na nag jéego bu njëkk ba ci kaw Ousmane Sonko la wax ah waaw yéene kaa gi ne waaye day mu day takk dere kon nañ koo wër ndomba dama ne la gars taxawal nañ benn commission ad hoc woo xam fukki fan ak ci weeru février ya gi la danañu déglu kon Ousmane Sonko allahu akbar dama ne la di rapport waaw buñ ca ñaari fan fukki fan ak ñaar ci weeru février ya. moom la ñu yóbbu kon ca séance plénière ba jour la député di ñëw waaw le soleil yéene kaay ne manifestation ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon na Ousmane Sonko de jàpp leen ñaar fukki ca ñoom bàyyi nañ ñu ñibbi alhamdulilahi rabbil alamin ñaar fukk ak benn ca ñoom demuñu kaso te ne assemblée nationale day waaw dana joxe Ousmane ah, de la parce li kon def eh way Samba critique yéene kaay ne assemblée nationale kay nag dégg dëgg waaw mode de fast track lañ ko def de mbir mi dañ koo nar a gaawal de lool boog soof li ne assemblée nationale ak président waaw balé nañu yoon bi kon moomu set wi dëgg la la wax lay si ko yéene kaay ne man kay ma lay waxon mbir mi na mu demee laa la wax ci ni nga xamné noné lañuy wajalé ñuy waajalee ngir rey Ousmane Sonko mi la dal di koy yóbbu seeraas politique am waaw dama ne la gis nga bureau assemblée nationale bobé fukki doomu adama ak djuroom ño wote né waaw nañ leen lalli malaanu kaaraangeewu Ousmane Sonko mi la ñaar ño ne déedéet moy Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly président groupe parlementaire bu Abdoulaye Wade ak yaay mam Albis mi ne yene kay gi ne gis nga Moustapha Niass waaw lettre bi nga xamné ay avocat wu Ousmane Ousmane Sonko dañ koo bindoon day ñes kumba Abdallah da koo xoot ci digg ba laa la tere reet tere reet enquête yéene kaay coowal Sonko bi lée ah fi mu nekk nii ña nga na wutali seeraas dañu koy rend dama la attaque bi ci boppam li mu bëgg mooy tereetu Ousmane Sonko test ADN waaw yéene kaay gi ne waaye ki nga xam ni moom moom salon bi tamit day la mu wax ca kanamu enquêteur yi waaw saful yàpp saful jën laa la wax borom ba daal day wax ci weer boppam jaxasoo na ñu ana Ousmane Sonko ana ana Sonko ko ana Sonko ana Sonko El Hadj Diouf ci source a waaw nee na Ousmane Sonko daal la mu war a nangu mooy dem defi test ADN laa la wax waaw pour ñu mën a jël nag deret boobu ak maniwum gi méngale leen ba xam mbir mi moom la maître El Hadj Diouf ne bu dee aji saar mi ngi ci réew mi ne demul fenn te mi ngi kaaraange laa wax demul fenn ah yow ta ko te moom aji fas yéene naa ak ñi ne yéene kaay daaw da cam gi ne maître a a avocat yi day moo ko annulé tere ko direct news ne waaye gis nga coowal Ousmane Sonko mi le waaw la gaañ a wax ca gendarmerie bale bëri na ay lëndëm lëndëm de ak ay wax waxe kenn xamul lii lan la Adji Sarr nee na ci massage bu njëkk ba day Ousmane Sonko def ma ni xàmmee nga ma est-ce xam nga ni xale yi jigéen yu baree bari bëggoon ñoo nekk sa place yaa mën moom aji saar yamu ca dee déedéet parce que nee na bi ko Ousmane Sonko violé ñeenteelu yoon ba yónnee na ko sax message waaye moom aji nee na daa supprimer message bi yaa mën a waaw yéen a kaay Pape Diogoy Faye bi ne waaye man li may laaj yow koo xam ne dañ lay siif benn yoon siif la ñaari yoon siif la ñetti yoon siif la ñeenti yoon te saa su ne yaa ngi toog di xaar ki nga xam ni moo lay siif te waxoo ko kenn ayaa bi mag sa talaakurus aji wàññil jaan gi aji wàññil siif gi ñeenti yoon ngay toog di xaar rek waa ji di ñëw naan daf lay violé di lay siif lu tax waxu ko kenn direct news de te gis nga ñaareelu masseuse bi day ay sa tabax waaw dem na wax seen patron boobee ne waa ji doon wax ak maam daal da ko doon laaj ko ndax sonko daanu ak yooyu ndax yëg na boppam waa kookee doon wax ak aji kana bog soob li ne en day setal na doom ji ba set wi nag laa la wax <laughs> waaw waaw parce que Pape ci critique yéene kaay waxuma la sax weedi gi nga xam ne weedi ko waaye ma ngay menacé laa la wax Pape Sagna Mbaye nee na kat mooy Sidi Ahmed Mbaye seede wu rëy wi mooy capital kat mooy kookee bog ko gis nga Sidi Ahmed Mbaye moomu moo jël si woon aji saar guddi am ah. sama jarbaat la sama kër la dëkk ak waxtaane Maodo Malick Mbaye day mbir mi laal na ko de il est touché dëgg la Maodo Malick Mbaye de c'est normal parce que man dama am mbetteel sama famille ci boppam instant bii ñu ngi sous waaye man ku ma xam ku ne xam ne sama politique fukki at ak ñaar yi ma ci def ci nice good fine lépp rafet Alioune Tine ci laas nee na démocratie wu Sénégal bi day mi ngi rot de mi ngi wàcc de nee na mbapp di dégg ngole ma nga ne mbapp le quotidien yéene kaa ne gis nga coowal Ousmane Sonko gi lé séance d'explication day wax waaw am na ca Touba de parce que Serigne Ousmane Sonko day di Serigne Cheikh Abdou Mbacké bu Daaru Muxti waaw ba mu demee ca Serigne Sidi Matar xalif généralu Mouride Serigne Ousmane Sonko bi xamal na ne ko lii Mbacké bala ay sa kompalool Ousmane Sonko la ñuy xeex Macky Sall tamit la profito daal di téléphoné Serigne Sidi Matar dalal xelam ko ne lii xew ay mbirum privé la te moom Macky Sall jox lii la wax sëñ Mountakha moom njiital APR sëriñu Ousmane Sonko bi ne ko kompolo la de Mbacké kompolo la ca jamono jooje corona gaa ngi continuer rey ba léegi ni la la wax démb kay daanaka laal nañ quatre cent ñaari téeméeri junni ci ay dose pikiir yi waaw nguur gi jënd na ci ñaari milliards ak ñaari téeméeri millions eh way samba ca jamono jooje université yi ngi tàng jër évidence yéene kay ne waaye université am na ñoo xam ne dañ cay dox ay tànk jàmm dee dañ ko war a rafet waaw parce que nag ku mel ni Doro Gaye day la ma am ca ndar barki démboo njaay mooy étudiants yi ak yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk doon jàppante day moo leen jubóole waaw ci plateforme bi la xibil xool PDG tribune yéene kaay ne waa askanu Sénégal gi la di population bi fan la ñuy jaar ba laa la wax ban buntu la ñuy jaar ba ndax fi mu nekk ni la dañoo nekk ci jafe-jafe yoo xam ni xat-xatuk yaram gi di crise sanitaire ay jafe-jafe xat-xatuk politique bi la crise politique bi <laughs>